Euh, ministre de l' intérieur ki yor wàllum kaaraange gi ñu ngi koy wax na ko mu respecté waa Malika suñu poste police bu ndaw bii nii ñu fi defal même buñ mënul def commissariat buñ mënul def commissariat nañ ñu jéem a yokkal ay élément police bi ñaari policier ñoo fi nekk ñetti ASP benn oto nañu respecté Malika Malika dëkk bu mag la dëkk bi beneen bi ñu koy yóbbu beneen bi directement dañ koy jox ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite suñu dëkk bi fii muy monsieur le maire ak ay ñoñam ñu ngi leen di wax ne leen ñu bàyyi su élection yu jubee ñu indi fii ay ñetti lamp yoo xam ne juróomi téeméer lay jar taal ko ndax ñi après dem seen yoon dañoo bëgg dëkk côté yi nga xam ne amul ay lamp ñu leeral ko leeral boo xam ne day sax dàkk mais bëgg ñu leeral boo xam ne ñetti fan mu fay beneen bi nag agresseurs yi sàcc yi malfaiteurs yi ñoo moom beneen bi mooy mooy agresseur bu ñu fi jàppati wala sàcc bu ñu fi jàppati nga nga sàcc casque écouteur dañ lay rendi suñu autorité yi déglu li li li nga xamante ne leen wax mooy li ñu def nii acte un la gis ngeen mbooloo mi te ñëpp ñëwuñu beneen bi mooy dañuy génnaat defee ko ci beneen forme bala ñoo def dara nag nañ respecté seen askan ñun bala ñoo jóg jaayante.